ok incha allah ñu ngi war a jël tey aaya vingt-huit ci sóoratu ibrahim aaya vingt-huit sóoratu ibrahim alam tara ila alladina baddalu nicmata allahi kufra إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ñu ngi sant suñu boroom ci ñu ngi nekk ci xéewalu weeru koor doonte ne weeru koor boobu mbokk bu doon ñetti cër ñaari cër ya moom romb nañ ko yàlla na yàlla nangul ñu ko muy wone ne kon li ci des bariwul yàlla nañu ko yàlla yombalal insha allah kon ñi ngi war a jël ay ñaar fukki bi ak juróom ñett mi ngi noonu Cheikh Ali
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخركم الشمس وسخركم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار
barakallahu fiikum suñu boroom mu ne alam tara mu ndax gisoo ila allazina baddalu nicmata allahi kufra ci ñi nga xam ne dañoo soppi xéewalug yàlla ga def ko ak weddi wa axallu qawmahum daaral bawaar ñu daldi dalal la nga xam ne mooy seen xeet kërug pertaange ga jahannama yaslawnaha jahannama joo xam ni daañu leen ca tabbal weer leen ca wa bi'sal qaraar aka bon ab saxuwaay وجعلوا لله أندادا ليدلوا عن سبيله def nañ ñel yàlla ay bokkaale ngir di sànke ci la nga xam ne mooy aw yoonam qul tamatta'u neel bànneexu leen fa inna masirakum ila annar seen mujj day mooy safara qul li ibadiya alladina amanu waxal ma sama jaam yi nga xam ne dañoo gëm yuqimu salaa nañuy taxawal julli wa yunfiqu mimma razaqnahum te di dépenser li nga xam ne dama leen koo wërsëgal sirran wa alaniya ñu koy def ci secret di ko def ci lu feeñ min qabli an yatiya yawm balaa ñëw bis boo xam ne laa bayun fiihi wala xilaal jënd ak njaay amu fa naka noonu it ak xaritoo amu fa allahu alladi xalaqa alsamawati wal ard yàlla mi nga xam ne moo bind asamaani ak suuf wa anzala min alsamaai maa mu wàcce jële kaw asamaan am ndox fa axraja bihi min alsamaraati risqan lakum mu génne ci ndox moome ay meññeent yoo xam ne wërsëg la ñeel leen wa saxara lakum alfulk mu tàggatal ñeel leen gaal yi di tajriya fi fi lbahri bi amri ngiree muy dawee ca biir géej ga ci ndigalam wa saxara lakum al anhaar mu tàggatal lii nit la nga xam ne mooy dex ya wa saxara lakum alchamsa wal qamar mu tàggatal leen jant bi ak weer wi daa'ibayni ñu sax di dox ci aada boo xam ne du soppeeku wa saxara lakum al layla wa nahaar mu tàggatal leen guddi ak bëccëg mi ngi noonu mbokk julit suñu boroom day wax ni xoolal ñi nga xam ne daf leen a xéewalal ñu wëlbatu ko xéewal googu soppi ko ca mbokk loolu mooy waa makka suñu boroom daf leen a tànn yónnee leen ki gën ci ñi masa yónni ci kaw suuf loolu di xéewal gu rëy xéewal googi ñu teeroo ko ak kéefér daa di dugg ci la nga xam ne mooy ak alkaange dalal ca seen xeet ca jamono yi saar yi di wàcc mi ngi noonu waa makka ku ca deewoon rek safara nga jëm lu dul lu néew a néew li toppoon suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam waaye ngalawaay julit rawatina yow doomu julit xamal ne xéewal gi gën a rëy boo xam ne nit dana ko am ci kaw suuf mooy xéewalug lislaam loolu bu la dara jaral ci àdduna nga di ko changé bari na suñuy ndaw yu fi jógee dem Italie ci liñ ñu nettali dem ci église bi na ñoom dañuy nekk ay chrétien ñu daal di leen jëwtal tur chrétien baptiser leen ngiree ñu mën fa jaar am ay këyit mbokk loolu c'est très dangereux am na ci ñoo xam ne dañuy dem ci groupe gay yi muy góor jigéen yu bon yu salte yooyu dem jaxasoog ñoom ne voilà Sénégal dañuy bund xotal góor jigéen dañu leen di persécuter kaza wa kaza ñooñu accueillir leen utal leen ay këyit mbokk loolu musiba mënul passé loolu sa diine lislaam addunaak li ci biiram bum la jaral nga soppi ko menaces yi ñu lay def bum la jaral nga soppi ko ay yéen ñi xam ay Ronaldo Mohamed Salah kaza wa kaza ndax mas ngeen dégg Abdullah ibn Xuzayfi as-Sahmi Abdullah ibn Xuzayfi Omar ibn Khattab dafa yónnee benn détachement militaire ñu nekk ci empire romain di jihad gaa yi piège leen jàpp leen biñ leen jàppee indi leen ci buuru Rome léegi buur bi gis ne ñii daal ñoom bokkul ak niñ daan jàpp ndax ñi ñi ngi ànd ak seen dal ànd ak seen personnalité mu daal di woo Abdullah daal di na ko yow moom dama bëggoon ngeen toog fii yéen a ngi jóge ci àll arabi saudi boobu amu leen dara toog leen fii yow danaa la nommé gouverneur may la sama doom bu jigéen abdullah ne ko gis nga buur waxuma sa nguur gi waaye boo mënoon dajale nguuru àdduna jox ma ko ci ne ma génneel ci diine lislaam sa saqi fi delluwaat ci sax duma ko def buur bi mer ne kon de dama leen di rey mu ne ah kon nga rey ñu rek buur bi tàngal benn kaw dir goo xam ne marmite bu rëy ñu def ci ay diwag yu kenn xamul baxal ko ba mu bax mu commencé ci ñi ànd ak abdullah jël ñaar ñett ñu sànni même pas quelques minutes ñoo ñu sëy loolu it sahabatul kiram gis ngeen muñ gi ñu muñoon te ñooñu kenn xamul seeni tur sax waaye gis nga jihad fi sabilillah pour l'islam yegsi ci ñun moo tax loolu ñu teg leen ñu koy def bañ ko mën a bi nga xam ne buur bi ñooñu sëy nañu mu ne ko yow li ma lay xalaat nag mu ne ko ah ala kulli xaal dara du ma jaral may soppi sama diine buur bi la sànni leen ko biñ demee ba koy sànni abdullah di tuur rangoon buur bi ne bàyyi leen ko waaye wax naa la ko kaay nga dugg ci diine chrétien nga nangam nga nangam mu ne ko mais ndax buur xam nga lan lay jooy mu ne ko ah lan ngay jooy mu ne ko damaa xam ne benn bakkan la ma yàlla may su ma dee rek si fini damaa mébétoon am téeméeri bakkan di dee fi sabilillah dee fi sabilillah loole bi mu amee buur bi rus dégg nga buur bi rus da ko waaw léegi taxawal parce que boobu ñëpp ngi dégg assemblée bi yëpp mu ne ko mu daal di koy woo dee ko da ko nag léegi da ngay taxaw ci kanamu nit ñi ñaan ma njëkk bu ko defee fuur suma bopp ma baal la mu ne ko bu dee man de dama ko def bu dee neen nag da ngay baal jullit ñi des ñépp de loolu mën naa ko def buur bi ngir sauver honneur am na ko waaw abdullah daal di taxaw na ko waaw léegi daal ñu ngi leen di jéggulu daal di fóon boppam buur bi na waa bàyyi leen leen ñu dem loolu lépp pour sauver toroxal gi ko waa ji toroxal sahaaba yi bi ñu dellu si waatee madina ñu nettali omar ibnul xataab abdullah fi mu jaar ak buur bi omar ne day lenn de xam naa ko yey na ci bépp julit fu mu dajeeg abdullah ibnu xudayfa respecté ko fóon boppam ca man amirul muminin maa koy jëkke jóg fóon bopp abdullah xista boobu li tax ñu indi ko yéen jeunes yi mooy ngeen gis kii liñ ko proposé ñaari mbir yu extrémité yu grave benn nguurub àdduna ngi nii ak doomu buur buñ lay may mu rejeté ko diinam jaralu ko ñaareel ba kaddir gaa ngi nii ñu rey la fi léegi mu ne ay ci dara jaral ma bàyyi sama diine loolu it mbokk jeunesse nga nga xam ko mooy ni'matallah bu ko weddee mukk ak kéefér kéefér dalay yóbbu jahannam te jahannam mooy këru pertaange lu ba waar mooy loo alko lu jeex boo sun maam yi buñ daan jibale jiw yu buur la mooy jiw woo jeex la mooy perte nga lépp perte nga sa bakkan perte nga sa alal perte nga sa njaboot loola taxoon a tax nga changé sa diine rek perte nga ko ñu ngi noonu borom bi nañ ne nit ñi day ñi ngi wutal yàlla ay moroom di sànkaate ci yoonu yàlla waaye bànneexu leen tuuti seen mujj mooy safara ca itamit mbokk aaya yi day ci yéefir yi la wàccoon waaye li ëpp ci nit yi tey lu ñuy def mooy dajale mbooloo cent mille personnes un million ci turu diine au lieu que nga woo leen jëme leen ci yàlla nga jël sa maam màggal sama maam li ko yàlla defal di nangam nangam ñoom ñépp ñu jël seeni xol wékk ko sa maam tax ba muy seen alal muy seen njaboot ñu ñëw jox la ko na am man nga caa dajale dix milliards man nga caa am tool yu kenn amul man nga caa am woto yu kenn amul waaye mbokk bànneex bu ndaw la bànneex bu ndaw la sa mujjuwaay mooy safara sa mujjuwaay mooy safara borom bi subhanahu wa taala ne yeneen ci yàlla bi ba tey wax waxal ma sama jaam yi gëm sama gaam sama jaam yi ma gëm wax leen nañuy taxawal julli ma gaa yi koo xam ne yow nee nga doo julli ndax bokk nga ci ñi gëm abadan galla waay mbokk jullit di yow mi nga xam ne yaa may dégg maa ngi lay ñaax ci ne boo juddu woon fekk sa baay ci diine joo xam ne dañu julli yàlla waaye xamal ne loolu ab nattu la bu gën a rëy ci natt yi fexeel ba topp diine ja yàlla masa wàcce ba mu créé asamaan ak suuf ba léegi yónni ci ay yonentam ku ci mujjoon di xaatamu nabiyin sunu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk ki gëm yàlla day julli ku dul julli gëmuloo yonent bi alayhi salaam mu ne al ahdu lazi baynana wa baynahum as-sala man tarakaha faqad kafara suñu digganteeg yéeféer julle ci nekk ku bàyyi julli yéeféer nga waxal ma sama jaam yi gëm nañuy taxawal julli taxawal julli ak julli bokkul lu bari ci nit tey nag dañuy julli waaye taxawul ñu julli boo ko taxawal julli la ci jiitu mooy nga respecté waxtu wa mi ngi noonu koo xam ne julli jot na fajara gi nii tey nga dóor say nelaw ba jant ba fenk tisbaane ngi nii non tàkkusaane ngi dama salal yaa nga ca sa commerce ba jant ba so ngal la way xamal ne yow munutoo taxawal julli gi taxawal julli bokk na ca laab laab ga ngay laab mi ngi noonu sangu farata ak njàpp bokk na ca jàng lu ñuy jullee dëppale koog julli gi yonente ba sallallahu alayhi wasallam nañuy taxawal julli gannaaw ba li ma leen wërsëgal nañ ciy jël di joxe yàlla waxul nañ joxe li ma leen wërsëgal waaye daneen nañ cay joxe la ca gën a kawe mooy zakat ca zakat boobu baykat bi la ñuy laaj un dixième waaye bu dee kiy yëngu ci wàllu xaalis lan la ko yàlla laaj ñeen fukki xaaj ngay xaaj alal ji benn ba ngay joxe nañuy joxe li ma leen wërsëgal nañ koy joxe li yàlla wërsëgal nit nag bari na alal yaa ngi oto yaa ngi kër yaa ngi mbubb yaa ngi loola yàlla wërsëgal rek sunu borom mu ne wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allah bihi alim loo mën a dépensé ñu ngi noonu yàlla mu ne xam na ko mu ne nag nañ koy def ci nëbbu ñu ngi noonu di ko feeñal bu dee faqiira la gën la ngay jëflanteeg moom mu nekk lu nëbbu te it looloo gën ci sarax yonente bi alei salaam nee na am nañu ñuy keral yowmal qiyaama moo ñi nëbboon seen sarax kenn yéegu ko waaye it niñ koy waxee ci tafsir yi passé doomu aadama bi man ngaa def loo xam ne nit ñi dañ ko xam ki tabax jàkka ki gas ab teen fi nga xam ne projet yi dafa ñëw mu def ci alal yooyu mbir la yoo xam ne neexul a nëbb waaye loolu yàqalu la dara sirran wa alaniya borom bi nee na mi ngi ñëw benn bis suñu kanam bis boobu jënd ak jaay amu fa àdduna tey man ngaa am soxla bu ne këtt na doon nga jaaxle xamoo nooy def ganaa naa jaay sama portable bi ngir ordonnance bi ne nañ ma munta ñàkk wala maa dee nag xaaral ma jaay portable bi gis borom kër boo xam ne ay bor njett na ko xamul lu muy def naa sama kër gii naa ko jaay dem ca gox sàngam jënd fa kër ngiree ma mën a fay samay bor loolu mbokk ci àdduna la yem gannaaw ba ak xaritoo wala fi dañ naan lu waay ñàkk xaritam moo ko amul mooy jamono bi xarit di am xam nag xarit am na léegi am déet waaye bu jamono ba xarit di am mooy loo ñàkk rek sa xarit a ko amul nga noonu loolu tax na ba suñu borom it ne àllaaxira loolu amu fa de àllaaxira kenn du yenu ay bakkaar dajanteeg xarit bi nga xam ne daaw ñu tàqale ko guddeeg bëccëg mu ne ko saawaay ndax dooma gàddul ceer bi mun laa déet li ma yenul doy na mu sëkk ak barke dooma may benn toya ba ah déet ko mën sam rek la dana matam déet yaa ngi dégg xaritoo amul foofu mi ngi noonu xaritoo amul foofu bal suñu borom nee na ñi gënoon a xaritoo dañuy doon ay noon lu dul ñoo xam ne seen xarit da dafa teg woon ci ragal yàlla muy ñaar ñu texe daje yowmal qiyaama waaye bu dul looloo ay noon yu rëy ngeen di nekk suñu borom nag subhanahu wa taala wax nañ leen ci ay tafsir yi passé bokk na la borom xam-xam yi seetlu li yàllay wax ci jaww ji waxu ko ci ibaadaat yi yàlla ni muy attiré suñu attention ci li mu créé loolee tax nga mën ci xam màggaayam bokkul ak aayim naan julli leen wala woor leen allah kan mooy yàlla yàlla mu ne moo bind asamaan yi mbokk asamaan yaa ngi noonu nga xam ni tey suñu borom won na scientifique yi ay centre observatoire yoo xam ni doomu aadama ay année lumière lay gis année lumière mbokk année lumière dafay nekk neuf milliards ci kilomètres la ñuy tuddee benn année lumière biddiw yi ngeen seen dañ ne biddiw bi ci gën a jege suuf mi ngi nekk quatre année lumière quatre année lumière donc boo koy xool day nekk plus de trente six mille kilomètres trente six milliards de kilomètres mooy biddiw bi gën a jege suuf trente six milliards de kilomètres ca kooku mbokk dafa boo ko doon màndargal ak yi nga xam ne ñoo koy féete kaw loola du lu ñuy mën a wax abadan ci lang yu bari kan moo ko bind muy allah kan moo ko organisé muy allah ca noonu mu nekk des milliards et des milliards de biddiw biddiw bu nekk yaa ngi daw xil yoo xam ne mënu su ko imaginer ci waxi ñu doomu aadama benn du ci mbëkkanteeg sa morom ku nekk yaa ngi jël sa rotation ba ngay jël suñu borom mu ne kullun fii falakin yasbaxuun suufa ngi yàlla moo ne maa ko bind ak li ci nekk kenn xamul nu mu toll ci ay xéewal man maa jëlee ndox kaw asamaan wàcce ko génne leen ci meññeent yi ngeen di dundee doomu aadama yi million d'espèces de meññeent moo nekk ci kaw suuf borom bi def ko wërsëg ñeel doomu aadama doomu aadama mën a lekk lu nekk omnivore lu ne mën na ko lekk suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne maa leen tàggatal gaal muy daw ci biir géej ma gaa yi ndax xam ngeen ni quatre-vingt-dix pour cent transaction yi am ci àdduna bi mooy jëflante àdduna bi quatre-vingt-dix pour cent ci géej gi lay jaar Sénégal li ñuy lekk ci ceeb yéen caami ni bu doon tene ay oto koy jële Chine di indi fii ndax dana sotti déedéet du sotti nga gis suñu borom tàggatal doomu aadama mu am ay pétrolier ah ay cargo yu mën a jël cinq cent mille tonnes day gis bato bu ko mën a jël cinq cent mille tonnes jële ko Chine wàcce poro Dakar mi ngi noonu loolee di xéewalug yàlla mu tàggatal ñu géej bu dul woon a géeja jafe-jafe dana bëri lool suñu borom it mu ne mu tàggatal nit ay dex gannaaw géej gi dex yaa ngi nii yi daw fleuve yaa ngi nii côté Fuuta mi ngi noonu dex yu ndaw yu lu mel ne lakk yi yu la déguère ak yeneen ak yeneen suñu borom mu ne moo ko tàggat indi ko ñun ñëpp dañoo judd fekk ko fi yàlla def ko fi le Nil le kaza le kaza nit ñi dañu judd fekk ko fi yàlla def ko fi suñu borom it mu ne maa leen tàggatal jant ak weer ñuy dox dox boo xam ne doxu aada la daa ibay ni jant mi ngi noonu tey jii mënoon na laaj waa météo waaw tey le 15 novembre masalan 2020 kañ la jant bi fenk ñu ne la heure telle kañ la soo heure telle la chaque année du changé yàlla utal na ko ay yoon yi muy jaar xam nañ li yépp lu muy demee naka noonu it weer bi noonu la ko yàlla wutal ay wàccuwaay yàlla mu ne ñun la ko tàggatal te la chaque ne mbokk julit amul kenn ku jàng tuuti rek loolu nga xam ne waxuma ñu ne nañ fi jële jant bi loolu kenn waxu ko waaye orbite fi ko yàlla fixé nga xam ne scientifique yi ne nañ à cent cinquante millions de kilomètres la bu doon yàlla da ko yëkkati ba trois cent millions de kilomètres suuf yëpp bloc de glace lay doon ñëpp dee bu doon yàlla da ko wàcce ba cent millions rek suuf yëpp dee tàkk foofu rek mu nekk foofu rek la baaxee ndax gaa yi li mën na nekk hasard déedéet weer bi yàlla jël def ko satellite muy wër kaw suuf di équilibrer la nga xam ne mooy suñu océan yi di équilibrer lu bari ci mbay mi loolu bu fi jóge woon àdduna yépp daal di yàqu lii mbokk yàlla moo ko tàggat su mu ne nga dégg waa Senelec naan jéggal leen ñu coupure nangam nangam waa Sones naan jéggal leen ñu coupure nangam nangam waaye ndax àddina bi mës na mës nañu xëy coupure jant am jant ñëwul ñu naan tey léegi suñu jant déedéet mbokk mi ngi noonu suñu borom yàlla moo ko tàggat nii it la ñu tàggatali guddi tàggatal ñu la nga xam ne mooy bëccëg di xéewal yu rëy yoo xam ne suñu borom mu ni su ma saxaloon guddi ba yowmal qiyaama ku mën a indi bëccëg su ma saxaloon bëccëg ba yowmal qiyaama kan mu mën a indi guddi guddi am lu muy def ci sa yaram bëccëg am lu muy def ci sa yaram loolu lépp di xéewal yoo xam ne moo tax rasul sallallahu alayhi wasallam fu masan xëy danaan ñi ngi sant yàlla mi ñuy xëyal bu guddi jotee ñi ngi sant yàlla mi ñuy dugal ci guddi ndax lépp ay xéewal la yoo xam ne la ca nekk ci effet ci yow bari na lool doonte ni lépp ci doomu aadama yi xamatu mi ngi noonu
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
barakallahu fikum suñu borom mu ni wa aataakum min kulli ma saaltumuuhu moo leen jox lépp loo xam ne laaj ngeen ko ko wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuuha su ngeen doon wàññi xéewli yàlla yi day du ngeen ko mën a peek inna al insaana la zalumun kaffaar doomu aadama day nekk na tooñkat doomu aadama nekk na weddikatu xéewal sulkatu xéewal wa id qaala ibrahim fàttalikul bi ibrahima di wax rabbi jal haada albalada amina ay yàlla defal dëkk bi muy nekk dëkk bu am kóolute wajnub nii wa baniya an nabud al asnaam nga daal di may fegal maag sama njaboot ci ñuy jaamu ay xërëm rabbi innahunna adlalna kasiran min annas ay yàlla xërëm yooyu day sànq nañu lu bari ci nit ñi fa man tabi'ani fa innahu minni ku ma topp day kooku ci man la bokk wa man asaani fa innaka ghafurun rahim ku ma moy nag yow yaay ki jéggalaate ki yërëmaate rabbana inni askantu min zurriyati ay yàlla man day maa ngi dëkkal lenn ci sama njaboot bi waadin ghayri zi zara ci xur xur woo xam ne benn meññeent amu fa inda baytika al muharram ci sa néeg bi nga xam ne néeg bu ñu warmal la rabbana li yuqimu salaa ay yàlla ngir ñu daal di taxawal julli fajal afidatan min annas yàlla na nga def ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim ñu jeng jëm ci ñoom warzuquhum min asamarat nga daal di leen di wërsëgal ci ay xéewal laallahum yashkurun ngir ñoom ñu doon ñoo xam ne nii ñuy sant lañu mi ngi noonu mbokk gis nañu suñu borom nee na lépp loo xam ne nii rek aajowoo ngeen ko jox naa leen ko ci ay xéewal ca mbokk xéewalu yàlla kenn mënu ko fekk lañ ca alxuraan won kenn xamul nu mu toll ci xéewal yoo xam ne alquran mi ngi ci attirer sunu attention ci bi ko doomu aadama yi xamee sax yàggul am na téere buñ ci bind mooy gloire à Allah ou les mille vérités scientifiques di wone borom bi jalla wa ala ni muy xéewale ak ni muy attirer sunu attention nee na lu ngeen soxla yëpp jox naa leen ko mbokk doomu aadama bi lii fi nekk ci ay fruit su fi amul woon ku ko mënoon imaginer ba di ko ñaan suñu borom yàlla lim ñu defal ci lépp loo xam ne ñu ngi koy soxloo masalan doomu aadama danay soxla ndox du ëpp li muy soxla ñam looloo tax ba ndox moo gën a yomb ñam mën ngaa taxaw fi rek ne ndax du ngeen a may ndox ma naan xale bu ndaw mooy dem may lu ndox nga naan waaye boo ñëwoon fii te ne du ngeen a may añ loolu dana gën a jafe amma kon moo tax suñu borom yombal léegi nag mu des ngelaw bii ñuy noyyi mbokk bu ko yàlla bàyyi woon commerçant yi ndax dana sotti nga xam ne yaag sa njaboot bala ngeen ne noyyi da ngeen dem jënd ay mbuusi ngelaw di noyyi xam nga loolu du sotti suñu borom yàlla daal dañu koy ceyel lépp loo xam ne dañ koy soxla woo rek mu indi ko loolu moo tax ba mbokk tolloon nañ ci jamono nit ñi soxla woon déplacé wu yàlla may leen fas mbaam ak ay giléem nit ñi di gën a bëri di gën a tasaaroo suñu borom yàlla indi oto ñu jëfandikoo oto mu indi train nit ñi di gën a tasaaroo réew réew suñu borom yàlla créel ñu la nga xam ne nii mooy ay avion fu nit ñi toll rek yàlla indi lu mel noonu daanañ toll ay temps su maam yi pour communiquer dañ daan takk ay fas masalan tey buur bi jiite Sénégal day am fas yu ñu takk dëngéej takk benn fas barñi takk benn fas sëbi xotaan takk noonu ay ay ñu fay teg bu buur bi bëggee jox ordre waa Ndar waa ji day dawal fasam dawal dawal ba tëngéej jox ko kooku dawal dawal tëngéej ainsi de suite loolu lañ daan def mais xoolal mbokk biñ demee ba àdduna tasaaroo suñu borom xelal doomu doomu aadama ñu créé ay poste di def ay lettre ñuy dem di dem dem ba léegi xoolal fi ñuy jamono toll nii ngay taxaw sa doom di nekk États-Unis nga toog jàkkaarloog moom wax sa soxla yépp daal di teg gars yi loolu jamono ko laaj jeex na te c'est pas la fin de l'histoire ñun nii la ñu tombeel mais suñuy doom ak suñuy sët lan la ñuy tombeel loolu yàlla moo ko xam ndax lii ko ko waxoon maam yi ñu weddi ko kat mi nga noonu suñu benn maire dafa am benn góor gu ne ko ah man de dégg naa tubaab bi defar nañ rajo boo xam ne ki ciy wax dañ koy gis mu ne ah tubaab ba gën a bëri sol waaye loolu doo ko gis mbaa ngay dee waaw rajo bay jàkkaarloo koy wax te bokk mooy loolu mooy télévision ah télévision kan ñu ñëw Sénégal mi ngi noonu da ay daani soixante dix yooyu la ñëw Sénégal mi ngi noonu mais nag ñi mënuñu woon xalaat ne nan la nit ki mën a tege fi benn appareil kii nekk ca Washington ci studio amul fil bu leen jokkale nga taal sa télé jàkkaarloog moom muy wax nga xam li mu sol gis bokk loolu mbir la yoo xam ne maam yi mënuñu ko woon dégg ala kulli xaal ñu lii lii ñëw ci kanam yàlla moo ko xam fu jamono toll rek yàlla dana indi li tax doomu aadama mën a dox ci kaw suuf wa aataakum min kulli ma saaltumuhu borom bi nag ne su ngeen doon lim samay xéewal du ngeen ko mën a pekk ba ko doomu aadama munoo fexe ba lim xéewal yi la yàlla di defal abadan mi ngi noonu fii nga toog rek wallahi chaque minute c'est des millions de cellules la yàlla di éliminer ci yow parce que sonn nañu remplacer ko par des millions de cellules waxuma chaque jour de waxuma chaque heure chaque minute laa wax c'est des millions de cellules la la yàlla di xiiwal xoolal lambal sa dënn bi sa xol bi ba nga amee deux mois sa biiru yaay ba tey mi ngi dëng-dëng di pompe sa deret ji def circulation bi di di dem xoolal la nga xam ne moo jaar ci sa poumon yi xool xoolal xoolal wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha doomu aadama mënoo feek xiiwali yàlla abadan waaw lu tax doomu aadama di ko bokkaale nag suñ borom mu ne dañoo mën a tooñ mbokk tooñ mooy teg ak fa nga ko wur te teg dañoo mën a tooñ képp koo xam ne nii añ na ba regg fudd daal dina jërëjëfe suñ caam fàtte boroomam gaa yi kii mooy tooñkat ndax xiiwal yi tax muy fudd yépp ci yàlla la jóge moo na ko fa ñukk dem di sant suñ caam kafaar muur xiiwali yàlla mi ngi noonu loolee mbokk mooy lañu suñu borom wax mu jox ñu nag misaalu benn ci ay jaamam boo xam ne moom da ko doon sant ibrahima alayhi salaam te nga la waay mbokk ngeen lem borom ñaan gi muy ñaan yàlla subhanahu wa taala ak ni mu koy toroxol ni mu koy torox lool presque fukki yoon ibrahima dana woo boroomam di saxal na mooy boroomam di saxal na jaam la xoolal mu ne wa is qaala ibrahimu rabbi jal haada al balada amina ibrahima yàlla natt na ko amul doom ba yàlla may ko njëlbeenu doom mi ngi jóge ci sunu maam Haajara nga xam ne saarata moo ko moomoon di aawoom may ko ko mu am ak moom doom Ismaïl suñu borom na ko yóbbu ko ca Makka ci xurwa kenn ne ko fa sànni ko fa loola tax boo demee suratul baqara yaa ngi fekk borom bi naan Ibrahima naan ijal haza baladan amina mu naan yàlla defal lii muy dëkk bu wóor bu am kóolute amma fii mu ne hazal balada nga dol ci alif laam lu waral loolu moo dina ne ba mu fay dëkk fekk haajara du woon dëkk waaye ba haajara muñee yàlla génnal ko fa ndox ay nit ñëw dëkk ak moom yàlla sant ko ma tabax fa kaaba ga kon léegi dëkk la moo tax mu ne hazal balad waaye gis nga mi ngi woo boroomam njëlbeenu woote rabbi jal hazal balada amina yàlla dëkk bi def ko muy dëkk bu am kóolute ca ngalawaay mbokk nañu xam ne premier xéewalu doomu aadama mooy jàmm yal na yàlla saxal suñu jàmm wala dëkk yu mel ni Syrie boo dellu woon ñaari fukki at ci gannaaw naa taaru dara manqué fa tey ngay gis ay dëkk ville yu rëy rëy lépp vide ñépp daw nañu par million tasaaroo ci àll bi ñee mën a dem Europe dem Europe ñii ila axiri lan moo ko waral mooy jàmm jeex na fa jàmm mooy njëlbeenu xéewalu doomu aadama moo tax Ibrahima jàmm la jëkk a ñaan te it yàlla def na mooy dëkk bi ëpp jàmm ci kaw suuf mooy Makka laa wax waxuma Arabie Saoudite mooy Makka ci boppam yàlla yàlla nag ma musal maag sama njaboot ci ñuy jaamu xërëm te jamono joojee jaamu xërëm dafa tasaaroo woon ci àdduna yépp mu ne nag yàlla yàlla nag ma ci musal man maag sama njaboot te it mbokk doomu aadama mi ngi noonu suñu borom def nañu fexe leen ba mucc ci sawara musul ci seen njaboot njaboot gi war nañ taxaw ci ñoom jéem leen a teete ci diine la gën a rëy nag la gën a am solo mooy nga fexe ba buñ bokkaale bokk bokkaale mooy musiba yi musiba yi li nga noonu boo déggee sa doom bu ndaw naan yaa cheikh diw wala barke diw wala gàlla waay loo ca man teel koo jubanti su duggee ci bokkaale rek ñàkk nga ko c'est fini yaa ngi dégg yàlla na ma musal maag sama njaboot ñuy jaamu xërëm te yàlla xërëm yooyu day muy rabbi yaa ngi dégg ñaareelu rabb ba mu ne ay sama borom ñoom day réeral nañ lu bari ci say jaam képp koo xam ne nii nag topp na ma ca kooku ci man la bokk ku ma mooy nag yaay ki jéggale ak yërëmaate mbokk ñan ñooy njabootuk yeneen ci mooy ñi leen gëm topp leen moo tax lu bari ci borom xam-xam yi la ñuy firi allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad aal boobu ña ngi ko firi ña ko gëm topp ko moo tax borom bi naan adxulu ala firawna ashad al azab yowmal qiyaama njabootu firaw nañ leen dugal mbugal ca mooy ña ko toppoon ay képp ku ma topp ci man la bokk suñu borom mu ne inna awla nnaasi bi ibrahim lillazina tabauhu wa haza nabi walazina amanu yàlla mu ne ñu gën a yey ci ibrahim mooy ñi ko gëm topp ko ak yeneen ci yàlla bi ak ñi gëm ba ila yawmi ddin moo tax suñu borom ne ñu topp leen millata abikum ibrahim yéen jullit ñu topp leen yoonu ibrahim fa man tabi'ani fa innahu minni ku ma mooy nag yàlla yow yaay jéggalaatee ko yërëmaate yow mi fekkee woon keroog dañuy wax dañuy tafsir su ci ba indi ghazwatu badr yonent bi alayhi salaam bi mu laajee saxaaba yi prisonniers yi lu ñu leen di def Aboubacar daf ne awa nañ leen yërëm rek bal leen laaj leen ay diya dañoo xamul rek donte ne Omar dana woon nañ leen rey ñoom ñëpp yonent bi alayhi salaam dana woon Aboubacar yow day yaa sama Ibrahima yéen a yem xol ndax moom dana woon yàlla sama xeet bi ku ma ci moy ah yàlla yàlla na nga ko jéggal yàlla na nga ko yërëm doonte ne mbokk loolu yàlla defu ko suñu borom mu ne wa man kafara fa aturruhu ila azabin alim képp ku ma moy danaa ko dugal ci mbugal mu tar ñetteelu woote bi mu ne rabbana ay sunu borom maadaama tey léegi mi ngi ñaan dugal ci njabootam moo taxu léegi mu ne rabbana ay suñu borom inni askante min zurriyati bi waajin xëri si zar ey yàlla fii ma dëkkal sama njaboot gi day nga sant ma ko xur la woo xam ne mbay amu fi kon nag yàlla maa nga leen dëkkal ci sa néeg bu tedd bi néeg bu araamal néeg bi nga xam ni mooy almuharram lañ cay jëkkee mbokk ñu xam ni mam haajara ba ko fa ibrahima bàyyee laaj na ko waa ibrahim da ngay dem bàyyi ñu fii ibrahima faalewu ko mu tapp ko tapp ko ba ci catu xur bi ibrahima da ngay dem bàyyi ñu fii ibrahima faalewu ko mu ne ko mais ndax yàlla moo la ko sant mu ne ko waaw mu ne ko kon demal yàlla du ñu seetaan mi ngi noonu ci la ibrahima ñaane ñaan gi mu ne yàlla de mi ngi nii sa néeg bi ñu war maal dëkkal naa fi sama njaboot mi ngi noonu la nga xam ne nii mooy ñeenteelu rabbana ba mu ne rabbana li yuqimu salaa ngiree ñu daal di mën a taxawal julli ca ngalawaay bu dee yàlla man loo na la ko ay waay fa ngay dëkk del dëkk fu jàkk am yàlla na yàlla dolli wér suñu mag abdul aziz Touré da daan wax naan kër gu gaaf mooy kër goo xam ne boo fa toogee doo dégg nodd mais ne loolu mooy kër gu gaaf boo ko jullit fexeel ba fooy dëkk nga mën a dem di julli ji ca jàkka ja julli jàkka dafa lay sàmmal sa diine kenn rek presque mooy respecté julleem normalement mooy ki tàmm julli jàkk mais bu dee yow sa programme bopp rek nga yor yaa julli sa bopp faat julli dana la yombaloon am naa ki bañ julli jàkk nga raw ko nag moom en général pour mu faat julli dana jafe rawatina nag foofu leen yàlla subhanahu wa taala dëkkal masjidul haram nga xam ne julli goo fa julli day mat téeméeri junni julli ci feñeen fu dul moom mu ne ngir ñu taxawal julli ay yàlla yàlla na nga def xolu nit ñi jeng jëm ci ñoom naam ndax maadaama foofu amul mbay lan moo fa des rek mu nekk centre d'échange ca mbokk it makka loolu la centre la bu nit ñi di jokkalante looloo tax bi yàlla faratale aj makka waa Yemen dañuy ñëw ak seeni marchandise waa Cham ak seeni marchandise échange am ñiy jëndante jaayante ci bépp dëkk bu nekk centre d'échange day daal di naat Dubaï gi ngeen di dégg produire ñu dara mais centre la boo xam ni nit ñi dañ fay daje gis ngeen yàlla na nga def xolu nit ñi ñuy de ñuy ñëw ci ñoom jéng jëm ci ñoom ca nga wërsëgal leen ci ay meññeent ngir ñu doon ñoo xam ne ñuy sant lañu ca mbokk mi ngi noonu it makka dara du fa ñor ca benn meññeent manque yu fa dara du fa ñor ca benn meññeent manque yu fa meññeent yi gën a baax yuy ñor ci àdduna bi sax moo fay dem far loolu kon ñaanuk baay ibrahima la ga mu ñuy won it ne yow mi yàlla wërsëgal nga samp sa kër ngalla waay del ñaan yàlla wàcc ci kër gi jàmm del ñaan yàlla jubal waa kër gi del ñaan yàlla wërsëgal wërsëg bu tedd waa kër gi ca di ñaan yàlla boolale yàgg sa njaboot ngeen doon ñi koy sant naka ko yàlla defaloon ibrahim yàlla yàlla defal ñu ko defal ko bépp julit mi ngi noonu barakallahu fikum suñu borom kon mu ne ibrahima ngay ñaan ba tey ma nga naan rabbana ay suñu borom innaka taalamu ma nuxfi yow rek yaa xam li ñuy nëbb wa ma nu'lin yow rek yaa xam li ñuy biral di ko feeñal wa ma yaxfa ala allahi min shay'in nëbbuwul ci yàlla ci lenn lu mën a doon fil ard wala fi sama du doon ci kaw suuf du doon ci kaw asamaan alhamdulillah maa ngi mboolem cant ñeel na yàlla allazi wahaba li ala alkibar mi nga xam ne moo ma may ci bi ma magee ismail wa ishaq may ma ñaari doom muy ismail ak ishaq inna rabbi la samiu du'a yàlla day mooy aji dégg la nga xam ne mooy ay ñaan rabbi jaal nii muqima salaa te yàlla yàlla nag ma def may kay taxawal julli wa min zurriyati yàlla na ko defit sama njaboot mu am ca ñuy taxawal julli rabbana wa taqabbal du'a e yàlla yàlla na nga nangu suñu ñaan rabbana ighfir li wa li walidayya e yàlla yàlla na nga ma baal maag samay wayjur wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab baalaale jullit ñéppit bis ba nga xam ne daañ taxawal rek la ba suñ borom mu ne wala taxsabanna allaha bul jort mukk ne yàlla ghafiran amma ya'malu zalimun dana doon aji sàggane ci li nga xam ne dana ko jëfe tooñkat yi innama yuaxiruhum nekk na day di leen yéexe li yawmin tashxasu fihi al absar ci bis boo xam ne dana ci ubbeeku mboole mi bët du mën a tëjee du mën a tëju mi ngi noonu mbokk ñu ngi gis kii di ibrahim alayhi salaam woona boromam ñeenti yoon bokk na ci juróomeelu woote ba mu ne ay sama borom yàlla yow de yaa xam lu ñuy nëbb ca yaa xam lu ñuy feeñal ca lool it day wone yàlla rek mën a atte ay jaamam ibrahima waxoon na yàlla ku ma topp ci man la bokk ku ma toppul nag yaay borom jéggal loolu it moo tax suñu borom nee na moom ak nuux wa min zurriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin seen njaboot day am na ca ñu rafetal am na ca tooñkat yu bir ak tooñ ca it mbokk julit bokk na erreur bu dab diine ñu jàpp ne am na famille yoo xam ne yàlla da leen a baaxal ñépp a baax looloo tax ba bu bàyyi dee doom tegu deuxième doom troisième doom ñépp ñu ñu jara yaakaar lañu mbokk yàlla musul defal loolu ab yonent yàlla musul defal loolu ab yonent amul benn yonent ci yonent yi ñëw ci kaw suuf lu dul yàlla njabootam def na te ñu baax def te ñu bon moo tax ibrahima ba mu ñaanalee njabootam suñu borom dana ko ah d'accord waaye nag wa man asaani képp koo xam ne daf maa daf maa moy loolu kon bokk mi ngi noonu su ko defee kon yàlla yaa xam li ñuy nëbb yaa gën a xamit li ñuy feeñal te doomu aadama bi du liñ feeñal yépp mu nekk ci biir xolam mi ngi noonu suñu borom nag daal di koy feddali ni yàlla day dara réeru ko ci kaw asamaan dara réeru ko ci kaw suuf ca loolu it jurit da ko war a gànnaayoo yéen a ngi fàttaliku luqmaan ba muy yar doomam ja lu ko ah sama doom xamal ni day in kaana misqaala xabbatin min xardal fa takun fi saxra aw fi sama aw fi l ard yati biha allah sama doom foo nekk nekk faag ragal yàlla amul lenn looy def ci lu baax mu tuuti ba mel ne pepp bi gën a tuuti ci dugub wala nga def ko ci lu bon nga tëju woon ci biir xeer ngir montagne def ko fa wala naaw ko asamaan def ko fa wala nga dem fu la neex ci suuf def ko fa yowmal qiyaama suñu borom dana la ko indil indil la pay ga méngoo ak moom suñu borom dara réeru ko ci asamaan yi dara réeru ko ci suuf gannaaw ba nag la ibrahima sant yàlla mu ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma may ba ma màggatee ismail ak ishaq bokk suñu borom yàlla dafa nattu ibrahim bi muy jóge kër baayam baayam dàq ko génne ko kër ga waa dëkkam dàq ko lana woon yàlla may ma nag ay doom yu baax yàlla ñaan googu mayu ko ko ba presque ibrahima am téeméeri at ca la koy doog a may premier doom muy ismail ñu teg ca treize ans mu doog koo may ñaareelu doom muy ishaq mu ne nag maa ngi sant yàlla ni ma bàyyi ba ma mage mu may ma ñaari doom yi ca loolu mbokk julit day wane it ne suñ borom lu ko neex def mooy ak njaboot yàlla mën na ko may nit ki fu mu ko fu mu ko neexee ngi noonu in wala kulli shay'in qadir loolu it muy wañe ne dikk dafa war a sant yàlla ci am doom lan la ca jublu mooy doom yooyee nekk ay jaamu ko ci yàlla ngir lu ñu jaamu yàlla yàlla bindal la ko falilahi alhamdu ismaila moomu ñi ngi gis bàyyi mi ngi ñaan ci kaw naan rabbi jalni muqima sala yàlla yàlla nag ma def may taxawal julli maag sama nja maag sama njaboot ismaila biir yàlla nga ko seedel kaana ya'muru ahlahu bis salaati wa zaka wa kaana inda rabbihi mardiya suñu borom nee na ibra ismail ku sonnoon la ci taxawu njabootam bañu njaboot gi di taxawal julli yi ngi noonu di ko taxawal ca waxtu wa di ko taxawal ca mbooloo ma di ko taxawal ca sàmm ko nee na ko sonnoon la ci loolu mi ngi noonu yeneen ci yàlla bay mujj ñëw nekk sa tamit di is di suñu yeneen ci yàlla muhammad suñu borom mu ne ko wa'mur ahlaka bis salaa wasbir alayha digalal sa njaboot ñu sax ci julli ca nga muñ ci julli googee gannaaw ba isma isxaq isxaq moo jur yanqub mi jur bani israil yépp la shakk ne isxaq boobu tamit suñu borom yàlla subhanahu wa taala mi ngi noonu tagg na ko ci ab tiiriin boole ko ca gaa yu baax yi borom boobu subhanahu wa taala nag ibrahima ne inna rabbi la samiu du'a gis nga ba tey mi ngi indiwaat baatu rabbu sama bor borom yàlla kuy dégg ay ñaan la mbokk julit xamal ne foo ñaane yàlla yàlla may na la xanaa kay problème bi mooy kañ la la koy jox su dee li nga ko ñaan lay jox mi ngi noonu tey da nga ñëw ci benn waay na ko may ma naa nga mu ne ko wax dégg naa ko bàyyi ba mu neex ko mu yëkkati ko jox la ci yërmandeem bu gisee ni mu may la li nga koy ñaan moo gën ci yow salan yaa ngi ñaan yàlla yàlla may may oto may ma oto may ma oto ah yàlla gis na ne oto baax na ci yow mu may la oto mais am na ñoo xam ne ak ñoo yàgg reyante pour am oto ah ndekete oto boobu mooy seen bàmmeel am déet nga noonu wallahi benn waaye nettali na ma seen dëkkandoo benn oto la jënde quatre vingt millions quatre vingt millions nee na bisu tabaski la koy inauguré bisu tabaski ba mu ci duggee di dem ca la accidenté keroog la dee première sortem ca la dee ñu ngi noonu loolee kon suñu borom it léegi la ci yërmaande jaam mu xam ne kii daal oto baaxul ci moom xaaral ma may ko doom ju baax joo xam ne ëllëgi ki si biir dana ko jural lu ëpp téeméeri junni oto ila axiri ay misaal rek la ñuy joxe ci loolu ala kulli xaal heure boo ñaanee yàlla yow julit yàlla may na la li nga bëgg wala mu dàqal la lor bu naroon a dal sa kaw wala mu dencal la ñaan gi ba àllaaxira mu fay la ko waaye inna rabbi la samiu dua ku ñaan yàlla yàlla dana ko may loolu moo tax ba galla waay del ñaan yàlla directement rek bu ci boole kenn yàlla ak sëñ diw ak sëñ diw loolu jaru ko inna rabbi la samiu dua ibrahima woowaat boromam encore rabbi ay yàlla ij'alni muqima as-salat yàlla yàlla nga ma def may taxawal julli wax naa leen sànq ne taxawal julli du julli mbokk jullit taxawal julli mooy liñ leen ca waxoon sànq yàlla na nga def sama njaboot it di taxawal julli ca mbokk mi ngi noonu njaboot gudul julli yàlla nañ ci yàlla musal gudul julli yéeféer la mi ngi noonu diine ju amul julli yàlla na yàlla musal ñu si jooju diine mbokk loolu du diine diine ju amul julli loolu du diine mbokk mi ngi noonu nañ ci nañ na ngeen koy nangoo seede bu leen ci sax sikki sàkk am na ñuy julli ba pare jàpp ne am na ñoo xam ne seen diine kat bu leen neexee duñu julli ndax dañoo amul may loolu boo ko gëmee yàq ñu dul julli yéen a yem mbokk sikki sàkk ci kéefér moo kéefér a yem loolu kenn du ci sikki sàkk jullit da ngay gëm ne yàlla nangulul doomu aadama ñu jaamu ko mu dee mu tàbbal ko àjjana ci diine joo xam ne julli amu ci loolu amut ñu ngi noonu mooy def ma may taxawal julli maag sama njaboot gannaaw ba mu ne ay yàlla rabbana taqabbal du'a ay yàlla yàlla nangu nangu sama ñaan gi gis ngeen te loolu it mooy ñaanu jullit boo ñaanee la nga xam nga ñaan yàlla it yàlla nangul la mi ngi noonu ndax doomu aadama bi yàlla dana nangu ñaan waaye am gàllankoor it yu nekk ci yow lu tey yàlla nangu yàlla du ko nangu bokk na ci lekk lu xaraam mi ngi noonu loolu gàllankoor bi gën a rëy ci ñàkk a nangu ñaan la bokk na ci ñaan ak dog mbokk ñaan lu xaraam ila axiri loolu yàlla du ko def wala ñaan loo xam ne nii du aada yàlla ci kaw suuf suñ tam mi dem ba am 70 ans di sukkootu julli par naan yàlla delloo ba mu am benn cinq ans waaye delloo yàlla du ko def mi ngi noonu ndax loolu du aada yàlla ci kaw suuf yaa ngi dégg kon yàlla taqabbal dua yàlla na nga nangu sama ñaan gannaaw ba nag mu ne yàlla yàlla na nga ma jéggal maag samay waajur te jéggal jullit ñi bis bi nga xam ne da ngay régler ay jaam na am mbokk ibrahima lii la ñaanoon waaye ah saxaaba yi di ko jàng saxaaba yi it bi ñu demee ba ñoom it seen bàyyi dee kéefér ñu leen di ñaanal njëggal di leen ñaanal njëggal xatta yonent yàlla muhammad bi abi taalib faatoo nee na ko danaa la ñaanal féeg yàlla terewuma ko danaa sax di la ñaan yàlla jéggal la yërëm la féeg yàlla terewuma ko waaye bañ demee ci suratu tawba la yàlla wàcce benn aaya wa ma kaana linnabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم yeyul ci yenente yàlla ak julit ñi gëm ñépp ñuy jéggulul ay bokkaalekat gannaaw ba ñu xamee ne dañoo dee ci kéeféer safara lañ jëm daa dina nag wa ma kaane istixfaaru ibrahima li abihi illa an mawidatin waadaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwun lillah tabarra'a minhu ibrahima day wax naa leen doon na jéggulul baayam ndax da ko koo digoon mooy borom yërmande baay bi dàq na ko génn ko këram wax jur nii maliya bu ma la tegati bët mu ne ko sa safuru la karab bi fu ma toll naa la ñaan yàlla jéggal la xoolal moo ko yërmande bi waaye ba mu demee ba yëg na baayam dee na ci kéefër keroog la dagg digganteem ak moom loolu mbokk sa baayu yéeféer sa yaayu yéeféer ngalla waay foo toll di ko ñaanal yàlla yàlla jubal ko yàlla gindi ko mi ngi noonu amma bis bu dee yàlla kéeféer googu it pareel ci moom pareel ci moom loolu lañ ñu suñu borom yàlla sant looloo tax ñaan gu am solo ngi nii ngeen di ko ñaan mooy rabbi firli wali walidayya walil mu'minin ñaan yu am solo la rabbi firli wali walidayya walil mu'minin waaye bu dee ne nag yow say waajur dañoo dee yàlla ci kéeféer da ngay wax rek rabbi firli walil mu'minin ndax say waajuru kéeféer amoo droit di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla jéggal leen wala yàlla yàlla yërëm leen mi ngi noonu bokk bokk na gannaaw loolu suñu borom yàlla lim ci teg gannaaw boobu ñu waxee misaalu jaamam bu baax boobu te it nga la way bal fàtte heure booy ñaan nga baril di wax rabbana baril di wax rabbi borom xam-xam yi dañ naan kiy ñaan wax rabbana rabbana rabbana woo boromam ñetti yoon il faut yàlla dana nangu ñaanam ibrahim ni fi boo xoolee presque sept fois mi ngi naan rabbi wala rabbana rabbi rabbana rabbi rabbana kon loolu di leen ko baril ci seeni ñaan loolu tax ñaan gi gën a mattale ci ñaan yépp mooy rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azab annar li mooy ñaan gi gën di julit di ñaan ngeen di ko baril fu ngeen mën a toll borom bi nag subhanahu wa taala daa di ne bul jàpp ne yàlla mi ngi sàggane li tooñkat yi di def ca mooy yow jeune julit da lay jaaxal mais xoolal américains yi tey masalan ñi ngi dem bombardé Saddam Hussein tasaare Irak des millions de morts mbokk waxuma des centaines de milliers de Irak des millions de morts mi ngi jóge ci bànneexu Bush ak bàyyi Bush ak ña mel ne moom ba ba président yi leen wut yépp bombardé suñu mbokk jullit par million lan la leen irakien yi def ñu jóge fa tasaare Libye rey Kadhafi tasaare ko dëkk bu naatoon kenn du fay courant ñëpp nekk ci jàmm ñu tasaare ko indi fa musiba bu dul jeex tasaare la nga xam ne mooy Yemen tasaare Afghanistan ndax nee na ñooy Ben Laden moo daajal seen immeuble kon dañuy tasaare Afghanistan yàq pourquoi yàlla di leen seetaan suñu borom mu ne ah déet wala taxsabanna allaha ghafiran amma ya'malu zalimun yàlla mu ne seeta da sàgganewu ma tooñkat yi li ñuy def de waaye bis mi ngi ñëw ci bis yi bis mi ngi ñëw ci bis yi bokk ñii tey jiite la scène du monde fii ak téeméeri at anañu ñëpp ñu ngi ci biir suuf ñi ko jiite woon téeméeri at ci kana ci gannaaw ñoom Hitler rek ñoom Napoléon ak ñoom kasa anañu li ñoom ñëpp dem nañ ñii it balaa yàgg ñu dem loolu tax suñu borom yàlla mu ne déedéet sàgginewuma tooñkat yi li ñuy def damaa jóge nag ci état ya waaye zalimoon tooñkat yi mbokk sàcc ba agresseur ba njaalookat ba naan ko lu sàngar ba kii tooñ tooñ gu mu mën a doon man nga tooñ tooñ ñu leer yàlla di yokk say xéewal di yokk sa jàmm waaye taxul yàlla sàgg na la de yàlla ngi lay xaare bis si bis yi loolu tax yeneen tibaale sax daan nañu wax nag ittaqu zulma fa inna zulma zulmaatu yawm alqiyama moo ci leen tooñ tooñ gu mu mën a doon ndax tooñ de day doon ay mbugal ay lëndëm yowmal qiyaama yonent bi jox ñu ci misaal extrême bu kenn mënta passé nee na benn jigéen dana tabbi sawara yowmal qiyaama lan moo ko ko yóbbee benn muus la jël tëj ko ci benn place mu fay jooy ba xëy dey loolu da ko yóbbu safara waaye kii tooñ nag ab julit kooku fu mu jëm looloo tax mbokk tooñ bu mu mën a doon tooñu état tooñu nit ñépp a ci bokk yam yàlla sagganewul benn tooñ waaye da koy xaari bis boo xam ne mi ngi ñëw la cay xew insha allah bu ñu fa dajee suba dañ ko jàng yal na yàlla musal ñu ci ñu ay tooñ yal na ñu yàlla wërsëgal ñuy taxawal julli yal na yàlla wërsëgal suñuy njaboot di taxawal julli yal nañu yàlla jéggal jéggal suñuy waajur ak bépp jullit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain bi sunu bàyyi ibrahima di bàyyi ismaila ca makka ndax isxaq gane na àdduna déedéet bi ismaila amee treize ans la ko suñu borom ne ibrahima demal nga rendi ko bim ñëwee ne ko ah sama doom sama borom nee na naa la rendi ismaila na ko defal li la yàlla sant mu daal di dem yóbbu ko fa la ñuy tudde muna fa ñuy sànni jamra yi ba mu ko tëralee ba dara desul lu dul rendi suñu borom daal di koy woo ne ko ibrahima li ma la santoon dëggal nga ko daal di koy wàcceel benn xar na ko rendil xar bi danaa la nag dolli comme yàggoon ngaa bëgg doom ma may la doom ma ne la rendi ko nga nar koo rendi danaa la dolli beneen doom muy ishaq borom bi ne wa basharnaahu bi ishaq nabiyan min asalihin keroog ba mu baree ren di ibrahim ba ismail at boobu la ko yàlla dolli beneen doom loolu tax ismail mage ne ishaq treize ans mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ishaq saaratu moo ko jur ibrahima benn soxna la amoon moom la doon àndal jóge iraq di gàddaay ba jaar égypte biñ jaari Égypte fekk fa buur bu saay-saay saarata taaram ba dafa jiggi woon dayoo garde yi dajeeg Ibrahim da ko ah ayoo ki nga àndal nag Ibrahima xam ne su dee sama soxna la dañ koy rey mu ne kii sama sœur la te it wax na dëgg ndax sœuram la ci diine ñoom ñaar rek ak luut ñoo gëmoon yàlla léegi mu ne sama sœur la ñu daa kon kii il faut ñu yóbbul ko buur bi de yow taaru nii moom il faut ñu yóbbul ko buur bi ah ibrahima amul pexe garde yu yóbbu ko naka ñu dem mu daal di jóg commencé di julli di julli di ñaan yàlla saarata it naka mu yegg ci buur bi moom it commencé di julli buur bi génn bi mu koy gisee jëm ci moom mel ne ay chaîne ñoo ko téye mënatul yëngoo ci mu buur mënut a paralyser sur place mu ne ko ñaanal sa yàlla mu bàyyi ma yaa ngi dégg saarata ñaan yàlla mu daal di wéra waaye taaru sarak mu buuraat paralysé waat mu ne ko ñaanal yàlla bi paa boo ma ñaanal yàlla moom ma bàyyi la mu ñaanal ko yàlla mu ne garde yi ki ngeen ma indil du nit daal di koy may hajara mu ngi noonu boole ko ak jur jox ko ibrahima moom ma nga nekk di julli di toroxlu ci yàlla e yàlla yow mi ma musaloon ci safara ba yàlla na nga musal sama soxna si ci ayu say-say bi naka noonu rek la gis garde yi indiwaat saarata ak hajara ak jur gi mu àndal ñu daal di dem bañ demee nag ca la ko saarata wax ne ko comme yàgg naa ooma doom jëlal xale bi nga def ko soxna ngiree yàlla may la ci doom loolu mbokk mooy cosaanu sunu am haajara mu mu mu mu yor ko nekk ak moom ci kër gi ñuy ànd di comme jëkkër ak jabar ba baa Ismaïla judd foofu ba baa Ismaïla dem yàlla nag daal di koy doog a jox ndigal mu doog a dem makka almuhim loolu mbokk mooy mooy mbir bi wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam bismillah naam waaw bismillah rabbana ak sama borom ñoo yem doonte ne ne la shakk ne làmmiñu arab moo gën a barkeel làmmiñ bu dul moom waaye benn la rek rabbana mooy yow suñu boroom mi ngi noonu waaye nag comme yeneen yi dañ doon wax rabbana sahaaba yi di wax rabbana rabbana moo gën a barkeel suñu boroom doonte ne ne làmmiñu arab yàlla da cay def richesse boo xam ne amul ci beneen langue bu dee ne rabbana suñu boroom mooy ki ñu moom amma baatu rabb ci arab day firi ki moom day firi ki nga xam ne mooy taxawe day firi kiy wëlbati looloo tax daal ci gàttal rabbana mooy suñu boroom waaye nag boo mën a wax rabbana moo gën wallahu aalam naam bismillah naam ndax su dee ndax waa ji liqaam da koy topp ak julli ci yonente bi loolu moom borom xam-xam yi dañ cam ixtilaaf dañ cam ixtilaaf te mooy la yonente bi alei salatu wasalaam di wax naan bu ngeen déggee aju nodda ji wax leen li muy wax gannaaw ba ngeen julli ci man ila axiri am na ñoo xam ne dañ ko boole nodd ak liqaam ñu jàpp ne noddu liqaam muazzin mooy muqiim doonte ne ne bokk na loo xam ne nii borom xam-xam yu bëri dañ koy wax mooy topp ak julli ci yonente bi ak wasila ci nodd bi rek lañ koy wax mais liqaam bi du loo xam ne ni dañ naan dañuy topp liqaam kat gi julli ci yonente bi daal di def ñaan ñaanug wasila loolu daal jàpp nañu ne moo gën a dégg doomu ca la ñu doy ci waxi borom xam-xam ya wallahu subhanahu wa taala alam waaw yaakaar na waaw ñu mujjee ci bokk bi rek waaw bismillah waaw heure boo xamee ne da ngay julli sa julleeg bopp da ngay liqaam góor fu muy jullee day liqaam jigéen moom mën naa ñëw rek kàbbar julli bu liqaama it dara newu ci waaye bu dee góor moom heure booy julli yow rek da ngay liqaam mi ngi noonu bu doon te ne da ngaa nekk foo xam ne fu sori ay jàkkaak yooyu sax mën ngaa noon da ngay liqaam waaye daal ala kulli xaal boo nekkee ci biir dëkk bi moom julli ga raw na la fooy julli da ngay liqaam ñaari julli nga war a fay li ngay liqaam julli tisbaar jóg liqaam julli tàkkusaan mi ngi noonu mbokk jullit wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain